naka su noonu yoon dina daal di daal sa kaw mu ngi mel ni daal mi ngi alerté askan wi voilà mu mel ni am na beneen mbokk bu nekk ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Diarra. Oscar nuyu naa la bu baax a baax. maa lay fay nuyoo ci lay jaar. est-ce que doo wax ak sa internet yi bala ñu may jël si tamit. lii moom bu bu. Ah. bu continuer damay damay toog rek seen kàddu dootuma ko defati. <laughs> non mais yow yow yow yow amoo ci benn ah, sa antenne rek. mais mais Oscar réew mi dafa toj wax nañ ko jëli. Oscar réew mi dafa toj man gis naa ay journalistes yi nga xam ñu ngi leen di teg loxo te bu bu boo dégloo li ñuy wax nag amul dara lu méchant wala loo xamante ni war nañ leen jéem a teg loxo te teew ñu ngi leen di jël di leen jagat jagatee tey waa ji dugg rek mën nañu ma cee jël man parce que gisuñu ko man lañ gis waxal ak ñoom ñu dimbali ma. <laughs> waaw mais yow kenn du la jël parce que yow yaa ministre de l' intérieur yéen dëkk xanaa moom dina rusa tëj tëj boo xam ne xombal la dëkk comme moom de wala. dara wóorul yow si ñoom nga bokk yëpp wóorul Oustaz. <laughs> duñ la laal xam nga sànq bi say say sa bi nga sa kàddu yu mujj yaa nee nga njiitum réew mi nee na. Mhm. ñu ne si réseaux sociaux yi di def loo xamante ne nangam ak nangam. Mhm. ku ci kii dana da nga am loo jëflante ak yoon xanaa amul ne yoon amatul ci dëkk bi ñu ngi ci anarchie de. Mhm. ci anarchie lañ nekk yoon bu amoon moom du wax parce que moom suñu huit milliards la lekk te fi mu toll nii dañ ko waroon a tëj ci kaso bi mhm. mu génn suñu huit milliards mhm. bu yoon amoon kon Marème Faye Sall mu ngi mu ngi ci kaso bi parce que suñuy quatre milliards yoo xamante ne dafa jaay suñu ancien te ancien dépôt trac bu yoon amoon amu fay mi nga xamante ne mooy rakk Marème Faye Sall nekk ci palais bi di gagné trente millions par weer ci restaurant du palais xanaa ceebu bu yoon amoon Mansour Faye mi nga xam ne ñu ngi koy topp ak suñu alal kon ci kaso bi lay dee bu yoon amoon Mansour Faye doom bu jigéen Aïssatou Faye mi nga xam ne suñuy milliards barki dee moo jaay la am bac barki dee moo jaay la juuti amagul sax trente ans yor ay milliards bu yoon amoon kon Aline Sall nga xam ne dix-sept millions Sénégal kenn ku si nekk nga yore ko quatre cent am kon fan la jëm buñ ñu mm-hmm. fontoo waaye Macky Sall na bàyyi waxam yooyu wax te xam ne ñu ngi ci anarchie Mhm. te moom moom na euh, na bàyyiwaat xel bi moom baax baa waa ji woote sànka ne xaw ma pare na pour defar ay joxe ko xam ne bëgg ku bëgg yor arme nangam nangam non ñooñu dañoo dafa mel dañoo xaw a retard senegal yi bëri kenn ku si nekk wut na arme moom de kenn ku si nekk wut na man na damay laaj ku wutul moom yaa ngi ci pertement de yaa ngi ci tardé ñun bañuñu ko ñu rey de waaye balaa ñuy daan nañ fexee daanal ay bakkan comme foofu lañ toll booy bi ñu rey kër Mbay Fall dóor ko ci dënn ba mu ci ginnaaw loolu lan la loolu du Mm-hmm. wala ki ñu rey du ab civil civil la civil la mu ngi revendiquer benn sénégalais boo xamante ne ni day défendre verte zone rouge mm-hmm. kooku moom lañ dóor bal ci ci ci ci ginnaaw ba bal bi génnee ci kanam loo xamante ne ni dañ la ab rebelle rebelle sax waroo koo rayee noonu mm-hmm. tey nga rayee benn civil boo xamante ne ni fukki at ak ñaar laa moon xaw ma léegi loolu la la loolu di guerre civile yaa ngi wax sànq benn benn benn euh, policier takk der boo xamante ne nii euh, yaa ngi hésité na. Euh, benn xam nga daf doon manipuler benn mm-hmm. arme affaire bi claqué ci loxoom yaakaar naa loolu lañ la gëm loo yow. Mm-hmm. lool lañ la gëmloo wala information yi nga jot loolu lañ la ci wax yow. loolu lañ wax ne dafa manipuler armam bi mais euh, malheureusement daf ko dafa mujje tiire boppam mais ñàkkul bakkanam parce que yenn ci xibaar yi ñuy jot dafa nañ ne dafa ñàkk bakkanam mais d'après yeneen i sources nee nañ euh, dafa nekk ci état bu doy waar mais euh, mi ngi dund. mais xam nga manipulation duñ jekki rek dala ñàkk na bakkanam dañuy jekki la dañuy jekki ne la dafa doon manipuler armam voilà. Mm-hmm. voilà ah, ah, mais teewul mais mu ngi ci mu ngi ci mu ci diggante dund ak dee loolu lañ lay wax bañ toogee ba ci yàgg ngoon nga dégg ñun la deena wala ñoo toog ba si yàgg suba nga dégg ñun la deena mm-hmm. wala doo gaaw a déggaat sax ñu ne mm-hmm. loolu moo ko rey de loolu moo ko rey de xam nga xam nga mu toll nii buñ la joxee ay ordre na la dem leen ngeen attaqué booy na ngeen tiré nga nekk ci biir ordre bi na leen non na leen jéem a maîtriser mais pas ñu tiré parce que ñi ñuy jàkkal ay sénégalais comme ñun waruñu leen a rey Mhm. ñu ne la yow da ngay da ngay insister wala yow da ngay yow da ngay riposter na la pat yor nga jël pistolet teg la ko dóor la bal nga wàcc ci saase ñu naan la mhm. ñu génn naan la dafa doon manipuler nangam nangam nangam nangam ñoom dañoo xam ne ñun dañoo ne seen biir yaa ma information réelle bëgguñu di wax ay xibaar yoo xamante ne ni wax dëgg yàlla yu day waar si suñu arme suñuy gendarmerie suñuy police parce que loolu du yoon waaye buñ te yeggee buñ te yeggee wala buñ dépassé limite bi lépp luñ ci xam dinañ ko information yi am nañ ko depuis depuis ba mu xewee bis ba mu xewee dañ ko rey wala reyuñ ko on verra bien dinañ leen dégluwaat amaana sax ñoom duñ ko kii hmm. man damay xaal benn benn benn police wala benn gendarmerie wala arme yoo xamante ne ñu ngi ci ab réew te yow ba ngay ba ngay dugg ci ba ngay dugg pour pour bokk ci benn corps d'élite da nga ni woon da nga cee dugg pour défendre sénégalais yi yow de yaa ngi défendre benn xale bu jigéen boo xam ne nee na moom mais ne moom day day moom day day dafa bëgg pour ñu rendre que justice lan moo tax rendre ñu justice Silbert Samba ak DJ bat yi nga xamante ne dañoo bokkoon ci corps de lutte yooyu ñu di xëy na la DJ Badji nangam nangam Silbert Samba nangam nangam benn corps bi jot nga ko ñu ne léegi duñ ci def autopsie wala autopsie yi ñu ci def ñoom seen ay propre résultat la ñuy andi kenn ki moom autopsie doo leen ko gaaw a gis parce que dañ koo transformé poudre boo xamante ne ni fu mënta def autopsie poudre doo ko gis tasaare nañ ko. loolu xam nañ ko mu leer la leen li may waxaat mooy mm-hmm. euh, euh, gis nañu suñu ay takk der yoo xam ne dañoo jël benn euh, ambulance dugg ci pour pour jéem a maîtriser booy yi parce que jaaxle nañu mm-hmm. amatuñ benn solution pour maîtriser booy yi au contraire ñu ngi jéem ñu ngi xeex si seen biir léegi loolu noonu boo xewee nga jël benn ambulance dugg ci pour mën a ban depuis quand bu njëkk dañu daan gis trafic ñi di trafiqué drogue ñoom ñu daan utiliser ambulance bañ tere woon leen ko léegi gisee ay ay takk der utiliser ambulance bër léegi loolu mën naa nekk tey démb booy comprendre loolu léegi tey bu fekkee ne urgence dafa xew benn ambulance yëpp koo xamante ne mu ngi urgence wala jigéen bi wasin wala hmm. jigéen ñoo xamante ne nii day dafa toll ci diggante ambulance war a jaar ci booy léegi nan la booy di jàppaatee loolu hmm. loolu dafa wóor dëgg la li may wax ni dañoo jàpp ay nervi yi dugal leen suñu code ba amatuñ benn formation hmm. naka la ñu mën a defee di lu gën a doy waar li mosuma koo gis réew moo xamante ne mu ngi tàkk léegi amoon nañu soixante neuf personnes yoo xam ne dee nañ ci régime mag Sall par les bavures policières léegi ak trois yi ak euh, euh, euh, beneen bi ci dolli ko waat léegi quatre nga dolli soixante léegi yaa ngi laal plus de soixante treize léegi moom ngay laal ñoo xamante ne ci régime mag Sall la ñàkk seen bakkan te dañ leen a rey régime Macky Sall boobu ba léegi ñiy toog di seetaan di seetaan man damay am damay am ak jàll bu ñu taxawee ne Ousmane Sonko dafa war a wuy Ousmane Sonko néew leen du wuy ji wala waxu leen lan leen ne daf na leen man su fekkente ni nii damaa war a wuy ji ñu jàpp ma kër barricade yi rek mhm. ba nga xamante ne amul droit génn amul droit ak njabootam amul droit ba mu demee jàkkaaroo juge xam naa la ko njëkk a na naka ndax yow yaa joxe ordre pour ñu barricade sama kër du ma génne ma nekk résidence surveillée juge bi ne ko déedéet mu ne ko léegi lan ngay xaar ci loolu juge bi ne ko li ma ci war naa ko loolu noonu wul Mm-hmm. loolu noonu arrêté wul après kat nit sax amuñu droit barricade këram tant que juge bi joxewul ordre pour ñu def ko résidence surveillée. Mm-hmm. Ousmane Sonko nekkul résidence surveillée nañ ko bàyyi. Mm-hmm. bu yeewoo këram ànd ak i militant dem wuy ji ñun amuñu ragal googu te man li may bëgg sax mooy Ousmane dem wuy ji ndax bu Ousmane Sonko demee wuy ji preuve yi nga xamante ne avocat am yor nañ ko lijjanti nañ ko ba jox leen ko ñu ko génne. Adji Sarr nee na Ousmane Sow Ousmane Sonko moo ko moo ko moo ko divergé xam nga nu mu tudde sax moom moo jël ndawam xam nga loolu lañ wax. divergé boobaa tamit dinañ ko ko. boobaa dinañ ko ba mu tàggoo bàjjenam naka na na day day dem village. far fi ni fa naa ci kër Max. jour ba ko Max di tëddee fekk mu indisposé woon Max naka boo boo boo mu joxul sa bopp di. boo mu joxul sa bopp eh, da nga génn ci banaa ci biti ngay fanaan. moom en état de indisposé dafa indisposé pare Max tëddee ko ci ba di samedi. tëddee na ko ñaari yoon ci guddi gi xanaa moom dafoo bëgg ñu fàttali ko loolu wala. mais Oscar kan mooy. ñoom nañu xam encore xaw ma Max ma kan mooy Max encore. Max Grand Yoff la dëkk benn booy la yëngu ci wàllum business. Hmm. ay téléphone day dem Colobane. day hmm. dem salle de vente man mi am naa copain boo xamante ne nii man dama doon jële ay téléphone Belgique ay téléphone yu bëri di ko jox sama copain boobu Xaadim la tudd nekk Colobane Xaadim da doon jaay mag da doon jox Max ay téléphone mu ko exposé si boutique bu mag sac bu mas a jaayee bu weer bu dee maxi day dem verse bi kon xam nañ maxi bu baax a baax a baax maxi Adji Sarr dafa indisposé maxi tëddee ko ñaari yoon ci samedi bi kon Adji Sarr moom ay ay ay encaissé moom yooyu sonalu ko moom ku yàgg encaissé la loolu sonalu ko beneen bi may wax mooy mm. waa Bennoo Bokk Yaakaar a waa Bennoo Bokk tëddee Adji saar ki nga xamante ne ni ñoom ñu ci bëri ñoo ngi daw di génn réew mi ñoo ñu bëri ñoo ngi daw di génn réew mi nañ xam ne affaire yi commencé gul nañ toog bés bu commencé nañ leen wax ne leen affaire yi commencé nañ mm. kuy daw na daw kuy toog na toog mm-hmm. Moustapha Diakhaté dafa wax dafa ni dinañ jàpp Ousmane Sonko dinañ ko tëj ñii ñi ngi ciy jàpp nañ leen jàpp ñi ngi ciy nañ leen bàyyi ñi ñuy rey leen rey ma ne ko Moustapha Diakhaté juumoo bu waaye nag li mu li mu li nga xamante ne daf cee juum nag mooy dafa yaakaar ne ñu ñuy rey dafa féete ci ci ci opposition bi rek lay féete bu moom ci waxoon moom man na cee bokk de la ci mm-hmm. bàyyi xel bu baax a mm-hmm. baax a baax a baax kenn ku si nekk ab ah, boo amee ñaari kër wala ñetti kër kër gu si nekk xam nañ ko boo newul ci kër gi yaa nga ci gain boo newul ci gain yaa nga ci gain kon nag nañ xam ni coow li bu tàkkee nañ xam ni euh, mën naa bañ a yem fi ñu yaakaar ne foofu la yem donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a yow nag bay boo sa xel dal bu baax a baax yow kenn du la laal jërëjëf Oscar duñ laal de eh, fi may dama am lu ma bëggoon a wax dama ko fàtte sax eh, eh, démb sorti Macky Sall lañu ama dafa génn euh, di def ay xaw ma affaire di Sénégal nangam numéro nangam nangam ak nangam nangam gis ngeen ko bi muy wax gis ngeen ko xam nga fit xel mi sax dal parce que benn euh, benn parole bu ci nekk rek def na ci ay fautes yu bëri maanaam xel mi moo dal parce que sortie boobu dañ ko ko forcer quoi. kon ni ko ko forcer xam naa ko. peut-être sax Jérôme Jérôme sax Jérôme bu fekkee mi ngi may dégg moom xam na ni xam na bu baax ni kii digal Macky Sall la pour mu def sorti boobu forcer ko xam na ma kooku moom lan lan la doon ci man Jérôme xam na ko bu baax a baax. kooku ko digal naka defal la tuuga def benn sotti. ni ngay ni ngay ni ngay jëlee zérom zérom ci suuf de ma ko jëlee ci suuf bokk. di non yow amoo sa contact. amoo sa contact et puis. et jigéen nga damay xalaat wax la loo xam te ne da lay tiital quoi. d' accord ma ma euh, bi tey ma suuf ma euh, joxal jëlal leen ma euh. xool da ngay envoyé si whatsapp bi sa kii comme ça ñu jox la sama numéro Oscar. non am amul amul amul problème waaye bu ma la jëlee suuf fexeel ba lu ma la wax fexeel bu mu la tiital rek na nga takk sa fit quoi. te xam ni foofu la système bi nekk système na nekk ay source yu yu yu leer rek man amu problème boobu ñu ñu ñu liggéey. yow il faut il faut il faut ñuy waxtaan parfois nga may jël si pet. <laughs> ñuy waxtaan tolluwaayu réew mi. loolu ne vous inquiétez pas man su la neexee su ma la jëlee suuf sax jox la min jox la numéro boo xam te ne ni kuy àññandoog Macky la di réerandoog moom loolu amul problème. amul benn problème ne vous inquiétez pas dinañ déggante waat incha merci. ok merci Oscar Siara ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom saa bu duggee dina def ay révélation yi nga xamante ni voilà comme li ñuy wax rek nopp day dalooti xawma lan loxo dalooti nopp xawma je ne sais pas moom ay révélation yu doy waar la yor Oscar ku koy ku koy wax on ma man jombi naa si réew mi en tout cas Sénégal woo ko réew mi wóoratul woote leen ci numéro yi 88 628 73 13 08 99 25 24 02 77 914 64 93 su ko defee yéen it ngeen daal mën na bokk si waxtaan bi ngeen wax seen xalaat ban jàngat ngeen am ci tolluwaayu réew mi mais également ponk yi nga xamante ni indil nañ leen ko mu mel ne am na beneen mbokk mu nekkaat ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum mu mel ni euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, sëñ bi nuyu naa la bu baax a baax tuut beeg fooy wootee. kooku télévision 2A TV. yaa ngi yaa ngi en direct. maa ngi en direct wala. yaa ngi en direct bi oui allo. oui bi yaa ngi en direct. 2A TV. waaw maa ngi wootee fii ci Italie mais damay leb tur bi. d'accord lebal nañ la ko ban jàngat nga am ci ponk yi ñuy waxtaanee. waaw xanaa di naqarlu li xew Sénégal rek mm-hmm. waaw li fa xew nii moom wax dëgg yàlla ñun ñu ngi fii mais suñu xel métti na suñu xol trop daal ndeysaan dëgg la ba tax na suñu wax sax du ci bëri parce que tamit euh, nit moom am na loo xamante ni si boo ko mënta faj mm-hmm. euh, salaam yi rek nga mën a yëkkati wax ci sa xalaat euh, liñ ci xalaat dëgg la mm-hmm. waaw parce que suñu gouvernement ni muy doxalee dafa xaw a war daal Mhm. allo. yow rek lañuy ñuy dégg waaw moom mbiri waaw parce que tamit nit moom bu la yàlla joxe nguur. Mhm. ngay jiite ba dem ba waa dëkk ba wóolootuñ la doylootuñ la. Mhm. dootul yoon forcé ak euh, sonal nit ñi li li rek mooy mu doxale ko ni ko ay moroomam doxale woon ba jóge fi demu yoonam. ca jàmm am Sénégal. mais li xew Sénégal nii moom wax dëgg yàlla musta xew Sénégal. dëgg la. ñun Sénégal lañu juddoo fa la ñu màggee nekk fay liggéey ba la yàlla jëlee ñu fa indi ñu bitim réew. Mhm. ñu nekk fii bitim réew di fi lii di fi daan suñu doole ngir suñu dëkk. te ñun ñëpp dañoo am ambition lijjantiku fii boo wëlbatikuwaat dellu suñu dëkk man faa ñëw exposé xam nga euh, dellu fa toog liggéey. Mhm. waaw mais ni muy doxe nii daal moom xam nga euh, da dalatul xelu kenn daal bu bu jeexul. dëgg la de réew mi de wóoratul. waaw. Mhm. waaw parce que fi mu nii daal moom suñu président li koy ñaan mooy. Mhm. mu dellu si xelam. Mhm. bàyyi ñu war a bokk bokk moom mi warut bokk moom mu génn ci organiser élection ñu dem ci ñu woote élection dem ci jàmm. ku yàlla jox réew mi ñu xam ne kooku la yàlla jox réew mi. waaw ki nga xamante ni si moom la sénégalais yëpp joxoñ muy Ousmane Sonko moom la sénégalais moom la sénégalais yëpp doy. bu mhm. yàlla defee jàmm mu gañe alhamdulilah su gañewul tamit kenn ku gañ ñu xam ni kooku la ko yàlla la yàlla dogal mu nekk président. dëgg la. waaw man daal loolu moom laa ci amal muy sama xalaat. jaajëf kàddu yi am na solo. di ñaan di ñaan jàmm dellu siwaat bu baax a baax a baax a baax. ci réew mi amiin amiin. Mhm. yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñi fa nekk. amiin yaa wëlbatiwaat xolu politiciens yi ñu doxal lépp si jàmm. waaw mhm. na nekk ci jàmm bu baax a baax a baax. merci beaucoup ku baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yal na yàlla nangu ñaan ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax voilà mi ngi noonu ñu fàttali leen li nga xamante ni mooy ponk yi ñuy daal di waxtaanee mooy li nga xamante ni mekk nañu ko nii kii démb foofu la ci diwaanu Ziguinchor. ñu bëri àddu ci mais également Guy Marius Sagna daat na ci yéeyaa bi di xam ne ñi daal ambulance bi nga xamante ni euh, takk der yi duggoon na ci ngir rek gën a mën a jege fi nga xamante ni mooy kër Ousmane sonk